yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziyaare bu baax a baax di ñaan suñu kàddu fekk leen ci jàmm di sant suñu borom bu baax a baax baax ci weeru tedd wi. doole santa sëriñ Touba bu baax baax ba ñu xirtalee ci sof suñu liggéey ci seen liggéey bu sell bi nga xam ne bi ngeen ko tàmbalee yàgg na te murid yëpp gis seen bopp ñu ngi ci sant bu baax a baax a baax di ñaan ngeen yàgg ko taxawee te am ca ngërëmal sëriñ bi ndax yéen ñi nekk fii yéen fi nekkal murid yëpp kon li ngeen def nii ku ko gis ku ne rek war ngaa góor góorlu dugal ci sa barkeelu mu yóbbaale la ndax gaal guy dem la gaal guy dem nag moom teg ci sa sa sa bagaan mu yóbbaale ko dafay dafay am solo euh, fondation sociale sëriñ tuba basé fële ca États-Unis ku ñuy wax soxna Rama jiite ko ànd ko ku mel ne ñun nii man Moustapha Amar ak sëñ Modou Ndiaye fii ci senegal ñu xalaatoon ñëw barkeelu ci liggéey bu sell bi nga xam ne at bu jot yéen a ngi ci nekk. Euh, jiitu ci ñëpp te nagu leen kenn euh, te sëriñ bi rek tax ñuy ñaan yàlla nag euh, liggéey boobu yàlla nangu ko te ñu am ci ngërëmal sëñ bi te lu ñu gëm la sax lu lu sëriñ bi nangu la moo tax it ñuy ñaan yàlla tuyaaba jooju suñu borom yóbbaale leen ci moo tax ñu indi liggéey bi di ko sof ci seen liggéey tàmbalee ko ci ci ci barab bu tedd bi nga xam ne mooy bunt bi waaw di jéggalu bu baax xam naa kàddu yi moom dafay xaw a jafe. waaye loolu daal mooy essentiel bi ci li nga xam ne moo ñu taxoon a jóg asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu. asalaamaaleykum wa rahmatulah yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare bu baax di jiitu nuyoo beeg siyaare bi Sëriñ Tuubaa Séex Muhammadul Muntaxaa di ko ñaanal yàlla suñu borom yàggal ko fi loolu te ko ba li mu yéene liggéey mu jëf ko te ànd ko ak noonu di leen nuyu ci turu Sëriñ Afiya bu sa imaam mii njiite daayira Muxaddamatul Xidma waaye di leen nuyu ci kii turu kilifa yi daayira Moukhaddamatoul Khidma yëpp bu ñu toogee ci jotaay bi nii Sëriñ Abdou Lahad Bousso Moutalib di secrétaire général mi ngi nii toog Baye Sall ña ngi ci organisation ak seen sang gi moom ci organisation ñoom ñëpp ñu ngi leen nuyu seen tur fekk fii ci jotaay bi tamit Serigne Ousmane Bousso bokk ci ñuy liggéey ci jumaa ji yéen mbokki taalib yi nekk Amérique ci tudd fondation sociale Serigne Touba Touba Amérique ci njiital soxna Rama Diouf ñu ngi leen nuyu baax di teg nuyoo bi ak cant yi ngërëm yi ci loxol Serigne Moustapha Amar ak Serigne Mbacke njaay yi teew ci jataay bi te ñëw fi teewal leen fi kon nag Serigne Moustapha Amar ñu ngi lay jotal ay cant ak i ngërëm ci mboolem ji bokk ci fondation bi nga jotal ñu ci ay cant yu jógee ci barab bi di jumaay Tuubaa jëm si ci ñoom ndax liggéey bi moom day liggéey boo xam ne ñi ko yor dañ koo yaatal lu nit sori sori lu nit jege jege jege daayira bi mi ngi lay bàyyi xel ci waxtu ci bëggee tàbbi tàbbi gi yomb ci yow ndax lu ñëpp bokk la te doon jëf joo xam ne liggéeyal sëriñ bi rek ko tax a jóg te lu baax rek la te lu baax ku ci nekk ku ne boo sañoon kenn ku nekk nekk ci ak yow kon nag yéen nag bi ngeen gisee yëngutu daayira Muxaddamatul Xidma taxoon at yee ngeen tàmbali bi ngeen njëkkee ñëw da mel ne benn keesu tàndarma ngeen andi woon damaa xamul walla ñaar tey jii andi ngeen fi fukki carton yi suukar andi fukki carton yi tàndarma andi fi deux carton mayonnaise andi fi deux kon mel na ne tàmbali gi ko tàmbali woon ci benn carton ak ñaari carton yi tàndarma tey ku ne xam na ne yokku na ñu ngi ñaan ci ba Sëriñ Tuubaa mu fulal leen ko yokkal leen ko baat mu jot bu ngeen ñëwee lu ngeen fi def ngeen gën a def lu ko man ñi ngi leen di gën a loxo ci lépp loo xam ne yëngutu la daal lu barab bi yittewoo lu jëm ci barab bi bu fekkee seen yëngutu jëm nga ñi ngi leen tàllal loxo di xamal ne fii moom lépp ñëpp la lu ne ku ne ngi ci kenn ku ci nekk rek foo ci ñam yaa fi yamale sa bopp waaye ñu fi nekk dañ koy sàmm rek sàmm gi nag kenn ku nekk buñ la sàmmalee ba nga ñëw la ci sëb danañ la ko jox noo ci jëfe ci pas-pas rek ñu xam noonu la jëfe sukar si douze douze carton la sukar si fukki sa carton la ak ñaar kon loolu tax na di jëf yu yaatoo yaatu kon nag ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm bu baax di leen ñaanal bu baax ci barke Serigne Touba ak jumaay ju tedd ji ñu nekk ci weeru koor yu ñu nekk seen jëf ji yàlla na bokk ci jëf ji yàlla nangu ngeen nuyul ñu soxna Rama ak ñam bokkal liggéey bi yëpp dina xamal ne daal daayira Moukhaddamatoul Khidma ñu ngi leen di bàyyi xel la ñuy sore sore nekk ba Amérique di bàyyi xel jëf ji ak yéen ñi nekk ci Sénégal fu ngeen fi mën di nekk moo xam Touba la wala région yi fu mën di doon di nga xam ne daayira baa ngi leen di bàyyi xel di leen sant di leen gërëm li ngeen indi dañ leen fas yéene defal ci ndog yi di ñaan bu ñu ci defee yàlla na yàlla barkeel liggéey bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi